loolu comme nu ko faral di defee la xam nga man moom luy reeloo nit ñi rek lay yëngu. Mm-hmm. def naa lu yëngu business profile profile yi nga xamante ne ñoo yëngati wàllum koppar yi xam naa rek man moom mooy <laughs> loolu. but uh, like uh, tey music entertainment lay dellu si rek. Mm-hmm. Uh, ma ki nga xamante ne moo ñu ngi ko ooyee Mashma. Mashma moom nag naar la jaxata la sant. Oh! waaye comme turam bi daf dee bëgg pronounce ko ci kaw ma xamal ne leen Mashma moom dafa nekk artiste waaye dafay yëngu tamit si wàllum béykat. moom day yëngu ci wàllum kéeg bi oh ba de kéegam yeeg moom lu nekk daal moo koy bégal boo xam ba de kéegam bi daf ko defar biir ko ni guitare parce ah! moom waaw parce moom background am euh, comme dañ day yëngu si wàllum ñi ñi ay guitare dañuy def ah, ñi wàllum tëgg beeg yooyu noonu rek xam nga yaa ma gën a noonu ñu seetaan ko rek dellu because of like soo gisee ma lay gën a sol this African because African laa so proud to be African murah tax ma dee gën a and outside de lo jaay dara lool li nga doon li nga doon. waaw tubaab bi mënuloo jaay dara lool li nga doon. so i feel like I feel like suma performance wala suma video clip mako sol. té tamit as a musician da nga am ay ñu la dé roy. waaw mhm. ngay defal cake. Hmm, and melam like, waaw cake man, di ba rek la sax dama ne mun mash mash mash mash. seet yow yaa ma neex seet naa ba seet yaa ngi génn si man xool naa fu ne yow rek laay gis dem naa fu ne yow rek laay yegg seet naa ba seet yow yaa ma neex seet naa ba seet yaa ngi génn si man xool naa fu ne yow rek laay gis dem naa fu ne yow rek laay yegg baby léegi mu waay bu ma sori bi mooy sama lëccum lëccum baby day yow rek laa miin moo tax yaay sama lépp daal yow rek laa wóor moo tax ma jox la sama lépp sala ba sa xol yaa fa ne wax ma sa mbéygal waay béykam naa lay fay sa toolu mbéggee lay bay yow laa miin te yow laa wóolu sa dal bi seede yow rek la lañ leen andiloon rek si wàllum entertainment. ma laaj sama jàmbaar ma waxuma la jàmbaar rek ma bàyyi sama mister Rapa bi moom mu ngi sànq rek mu sànq si dara. yeah, I mean, what we have seen so far is, is, is, is a good stuff, quite entertaining and, and, and impressive. I mean, mm -hmm. I give him high five, man. Yeah, exactly. it's really good. And for somebody to balance all of that, you're doing music and you're doing uh, bake, baking, right? That's very impressive. And it's also like... Uh, again, like it's a starting point for and, also an inspiration for all other youth so that they will know that you just don't have to limit yourself to one thing. You know, so dafa nekk lu important parce que société tam dafay air youth si tamit. parce que su fekkee boor bi baaxul. Ah, nga continuer si beneen boor. ah oui nga jàpp si benn waaw si benn côté rek loolu du la du la dimbali. non dégg la ba pare sa musique am dafa neex mun na yëngal mag mun na yëngal. <laughs> maa ngi leen di maa ngi leen di joxe déglu sax maa ngi si gis sama bopp thank you very much guys this has been a very like it has been a ride most definitely. gis nga nu ma yëngalee fii la that is the best way to end the show. exactly yeah so that brings us to the end of the morning show banjul of today so um, guys I will. I really like it if you go on ahead and subscribe to Sahel Network TV, turn on your post notifications, Comment down below and also like the video and share with your friends and family so that they can be educated and uh, on this topic. Most definitely, uh, this is, uh, these are things that concerns everyone mm -hmm. and I believe you should definitely watch it. And comment down below the what you have learned from this um, morning show episode and what you want us to talk about. Let's say you have social issues that you want us to talk about next time. Until next time, this was the morning show. But stay tuned for the news presenting by Aisha Coker thank you very much. waaw we'll see you next time. bu leen bu leen fàtte ngeen dina li ngeen xamante ne loolu la ñuy yokk wala lu ñuy wàññi di jégalu nag su fekkee a wax xam ngeen ne xel mutul waaye luñ fi wax rek pour bégloo la de yéen a ko bye bye. goodbye everybody. thank you viewers and my fans club. <laughs>